dëkk defe naa ni loolu mooy li nga xamante ni moo ko am tey wax naa leen les amis d'enfance yi nga xamante ni retrouvé naa leen mais Moustapha Fall kërik man noonu laa ko tuddee ndax moom la ko nit ñi gën a xamee taxawaayam ci wetu président de la république Macky Sall xam nga ku président Macky ba mu jël téléphone am woo la ni la li ngay taxaw ci man gis naa ko maa ngi lay sant di la gërëm bariwul te loolu la am nag si président de la république Macky Sall remercier kenn wax naa ko léegi ak ñu ma tudd ñëpp ñoom ñëpp ñoo sawarandoo ànd lii mooy APR ci biir Pire waaye nag muy sama mag ji sama grand frère sama xarit sama waxtaanandoo wax naa ko sànq muy kan muy Serigne Mboup di ko nuyu bu baax ndax sama diggante ak moom li ñuy waxtaane wax naa ni man ak moom ci ñuy waxtaan lu ñu sax toog ci table wala ci restaurant oto la ñuy dugg di wër Dakar di waxtaan ba doyal ku ne wàcc dem ñibbi nga nuyul ma ko sànq jokkoo nañu sama ñëw fii di nuyu nag sama xarit sama frère monsieur le maire de Pire Mamadou Ndoye Bane mu nekk nit koo xamante nii aussi ku am njariñ la ci Pire yàlla nga koy jàppale yàlla na ko yàlla gën a jàppale xaritu président la xaritu première dame la suñu frère la moom tamit sànq Masseer Diop maa ngi ko koy wax bi gis naa mu ñëw mission comme par hasard ñu dajeendoo nekkandoo fu sori Sénégal ci ay mission yoo xamante ni njëriñu biir moo ko tax a jóg di ko ñaanal yàlla ko yàlla jàppale bi ma ko waxee li daf ci sawar di wax ni fi ñu jóg kenn Moustapha lii la laaj ñun ñëpp ñu àndandoo taxaw benn taxaw tey jii du mairie la ñuy tey jii du députation du haut conseil fan la jëm li sës nan la mooy dañu war a élire un président de la république élire un président de la république nag ñun ñëpp dañu war a àndandoo du yëkkateendoo di tegandoo moo tax ma kontaan si suñu daje bi daje bi xeebuñu ko de rëy na si lool li tax mu rëy mooy képp koo xam ni responsable nga ci APR teew nga fi su ngeen jàmmoowul woon lii du am kon maa ngi leen di maa ngi bu baax mais nag di remercier Fati tey ñoom ñoo xewle ci lépp lu ma soxla su ko yëgee rek Souleymane dina woo Mari Bey Moustapha woo Mariétu Diouf kenit lam daan def di ko def ñu àndandoo ngir lan ngir am ndam ndam bu ma yàgg am ci Tiwaawan ñoom ils ont beaucoup contribué à cela kon maa ngi leen di remercier tey jii sama seet bi sawar naa ci wax ngeen ko jël benn seet la ndax suñu ñëw Pire ñu ñëw Pire buñ koy defar dañ koy waaj ànd ko ñun ñëpp. def suñuy réunion def suñuy préparation képp kuy kilifa ci biir tey jii yëgaluñ ko kenn parce que dañu ñëw rek seet si leen en visite privée ñu ñëw toog def lu rëy a rëy si biir ñu xam ni nag tubaab ñibbi si la bari ñu nag si suñu mooy mooy mooy suñu bari euh, loolu incha allah balaa boobu liggéey bi taxaw na ñu ngi leen li ngeen jot a def ci parrainage yi mais parrainage yi da doon parrainage yu sincère. dañu bëgg képp koo xam ne pare na leen ni ko Patrick waxee sànq mu nekk koo xam ne day voteel le président Amadou Ba. tey ji seen mission yéen les responsables yi ma cité ak ñu dul yéen mooy xamal nit ñi lan moo waral le choix d'Amadou Ba lan mooy intérêt tey jii Sénégal li fi président Macky Sall bàyyi di ko mën a continuer nga xamante ne du làmbaatu mais fa Macky Sall bàyyee lay teg continuer kenn la muy Amadou Ba. am na xarañ bi am na yaru bi am na expérience bi am na profil bi nga xamante nii tey jii moom la ñu yaakaar pour réew mi fii ko Macky Sall yeggale Amadou Ba a commencé par lui ak nit ñi suñu sañoon Macky Sall day amaat troisième mandat yeggali waaye jàmmi réew mi bañ ñi nga xamante nii tey taxaw nañu pour bu ñu nee troisième mandat ñu raaxaloo si biir yàq dëkk bi moo tax mu coupé leen l'herbe sous le pied ne muy man muy ki ma la waaye nag joxoñ naa leen Amadou Ba. kam ñu joxoñ nag lu ñu gën a gore moom président Macky Sall nam ñu ko jaxas joxoñe noonu lañ koy toppee jàppale ko bu baax a baax ba yàlla jox ko ndam li incha allah ma bëggoon rek li si des bareetul ñaari weer ñetti weer la ñuy wax bu leen wàccati terrain bi nañ dugg ci kër yi wax ak nit ñi naxaate bi bari na leer bi bari na manipulation yi bari na mais dëgg-dëgg intérêt yi Sénégal parce que ku gis li Macky Sall réalisé dem mu doon inauguré la maison de la maison des Nations Unies ku gis lu mu réalisé si biir transfert gis lu mu réalisé foofu sax sori na lépp si lampadaire solaire fii ci biir ku gis lu mu réalisé jàppale seeni maire yi tabax ay stade di tabax ay ay terrain de basket ku gis li mu def si bourse de sécurité familiale nga xam ni moom làmbatuwul ndax dafa wër Sénégal xam li Sénégal soxla bi mu ñëwee dañuy tari rek tari boobu nag actuellement day lebi di defar pétrole ak gaz bi war a commencé su ñëwee dootul lebi day tibb di defar parce que boobaa day gën a yomb kon tey jii bu ñu nangu kenn ñu amul expérience am ñu jàll ca gannaaw jóge sori nax leen jox leen ni milliard ni leen créé leen kaw dafa am lu ñuy woowee leen nihilistes ñoom seen philosophe mooy dëkk bala nga koy mën a tabax da ñëw raser ko. ba dara nekkatu fa nga indi xaalis jël nit ñi nga xamante nii ñoo gën a woyof bopp jox leen ko jox leen ay gànnaay ñu ngi dañuy tabaxaat dëkk ba sëñ fa la téeréer loolu mooy li ñu taxawee avec cette opposition bi nga xam ne nii fi mais incha allah loolu duñ ko seetaan Sénégal gii nag Sénégal gii je pense que Sénégal lu maam Cheikh Seydi Hadji Malick la Sénégal gii sénégalu lu maam Borom Touba Sénégal gii sénégalu lu Baye Niass Sénégal Borom Ndiassane Sénégal lu Cheikh Thiénaba Sénégal gii yi fi tëdd ñaan ñu fi ñaan ku ko nar a yàq yow yaay yàq waaye nag bu ñu naagu bu ñu naagu ndax nax yi bari na te la jeunesse est un terreau fertile pour ñu nax la. jeunesse bi soo ñëwee un discours indi leen casse indil leen folklore indi ay slogan jeunesse dafay teel a adhéré si on y prend garde loolu mën na wëy ba indi naka suñu noonu mais loolu yaakaar naa ne du am ñu mel ni yéen ak ñu suñu mission tey mooy sauver le Sénégal sauver le Sénégal mooy wax ak jeunes yi surtout mag ñi ils ont am nañ plus de conscience mais les jeunes ont besoin d'être éclairés kon dinañ meeting de waaye dinañ surtout wàcc si terrain bi dem ci nit ñi wax ñoom démontrer leen que seen intérêt pour que dëkk bi nekk si jàmm. pour que dëkk bi trend de développement bi mu nekk mu jëm mu gën a jëm kanam mooy l'intérêt mooy ñu élire ki nga xamante nii mooy président Amadou Ba buñ daan dem Touba dañ daan sonn buñ daan dem Gambie dañ daan sonn dem ñetti fan ci kër ay tey da ñëw traversé gis ngeen pont Rosso bi tamit à quatre-vingt-cinq pour cent pour dem Mauritanie kenn dootul fanaan ci bax da ngay ñëw traversé sooy dem Foundiougne Daxonga gis ngeen pont boobu kenn dootu fa fanaan le soo demee Sédhiou dëkk yi gënoon a enclavé le pont de Médina Ndiakhate pour ne citer que cela les infrastructures aéroportuaires ñaata kilomètres de route le président Macky Sall defar ñaata salle de classe ñaata lycée ñaata serre ñaata hôpitaux de niveau trois loolu dañ ko daan dégg rek sa Dakar tey Tivaouane gii leen jégg a jege ñu ngi fi am loolu yëpp nag. kenn duñ ko yàqal ñoo lànk ñoo bañ danañ ci taxaw fal Amadou Ba le président doon def continuer jàmm am si réew mi lii jël benn rek introduction la waaye suñu dellu see dinañ ko gën a développé Pape maa ngi lay remercier Pape Pape Pape Cheikh maa ngi lay remercier remercier la sa taxawaay démb si sama wet rawatina bii say maga fi li ma neex dama ni ko dafay jël parole pareetu man ko mais kaay Moussa Fane wax moom mooy sama kilifa mooy mujjee wax kon may soog a wax te ça je te remercie si loolu nga xamante ni def nga ko on remercie la presse ñi def waa Thiès Omar Sow suñu frère ndax ñun mi public bi xam nañ fii ñoom ñu xaw ma leen xam naa leen miin naa leen xam naa seen i xam naa seen seen i mag sëñ Modou Deme maa moom politique li muy politique journée bu oh, bëri day politique rek c'est-à-dire minuit ba ku am ku am jàmbaar la ci oh, taxawaay jóge ba Pekes jóge ba Ngexom pour ñëw ànd ak ñun kon maa leen sant di leen gërëm mais nag di remercier nag bu baax a baax ñii nga xamante ni ñoom laa àndal muy la Boson Ngor Teranga muy waa TDR la jeunesse de TDR ñu wax ne département bi nag amuñu fekk xaar na yàlla kenn fii ñëwuñu fi pour am lu ñu fi jël loo xam ñoo ko moomal suñu bopp xam nga li wut si lépp loo xamante ni suñ ko boolee mu gën a nekk doole pour le président Macky Sall pour le président Amadou Ba ñu fexe ba loolu ànd fekkoon nañu ànd bi am ba pare waaye nag comme ñun nag ñoo fi dëkk. mën a dugg fépp mën a dem fépp loolu ñoo ko def suñu suñu mission bopp kon lii comme ni ma ko waxee Pape wax nga sànq formation yi nee ngeen monsieur le maire Serigne boobu daan leen si jàppale leen baax a baax dinañ ñëwaat te suñuy ñëw ñu ñëw ndànk monsieur madame madame euh, madame le maire dinañ ñëw ak ni ngeen ko bëggee incha allah mais en attendant ñii ñu accueillir tey dina am lu ñu leen jàppale jàppale leen ci organisation bi ñu waajandoo nag suñu bés boo xamante nii ñu bëgg mu mémorable bu jaree ma indi Amadou Ba pire dinaa ko indi pire incha allahu taala di leen sant di leen gërëm asalaamualeykum wa rahmatullahi taala